téléspectateur télévision Futur Media ñu ngi leen di nuyuwaat alors ñu ngi waat fii. nga mën a gëm sa dëkk te lii nga xam ne ci sa dëkk la nekk nga di ko utiliser loolu danga ciy fier man dama yàgg bëgg ay dugub xëy na ci nee nañ ci sama maam laa ko doon ne man foo mu fekk maa ngi fawantu dugub cere affaire yooyu yàlla baax du ma tëdd sa te lekkuma cere ak meew waaw ci laa am amul boobu di ci liggéey mu nekk lu ma neex nag mu ciy bëgg saa su nekk heure bu ma ciy nekkee rek dama ciy gën a Euh, yëngu parce que loo xamante ne ci sama xol la nekk moo tax ma ma ma di ko yëngu ba léegi presque ñëpp sax kase Mabo céréale lañ may woowe sama tur pour ma dégg ko sax dafa raar kase Mabo céréale rek lañ may woowee. non du ma séeréer de waaye am na waa damaa bëgg cere rek parce que dafa baax ci yaram. waaw jàng naa maa ngi jàngee fii école Sébérut comme jigéen ñi rek fi ñu yam rek li di wax classe bu classe nandite <laughs> falaa yam maa ngi jàngee fii si Buxtaan école bi ñuy wax école Sébirut falaa jàngee sama primaire bi ba yegg ci classe naanute yi comme xamuma dama tey la bëgg xaalis ci laa dugg ci ci ci ci ci ci maanaam ci ci jaay ak jënd fekk avant may def céréale dama daan jaay di jënd. waaw maa ngi ci woon ci cosmétique bi tuddee woon sama bopp Kasema bu service ci laa njëkkoon a nekk. doon jaay affaire de cosmétique di def samay business ci suuf ba léegi sax maa ngi ci cosmétique bi maa ngi ci cosmétique bi maa ngi ci mais ci céréale bi lay gën a yëngu parfois xale yi dañ may xaar foofu 2004 ci laa njëkk a def céréale fekk dafa am sama benn cousine dafa xam ne dama bëgg cere maa ngi koy nuyu de passage parce que loo gis rek peut am na fu ko yàlla di jaarale dafa am sama benn cousine bu nekk euh, Italie ñu koy wax Oumy Sall mu ne ma comme da nga bëgg cere léegi dama lay yónni cere boobu maa ngi marché ti leen nga jëndal ma mu ne waa chaque jour ma dem jëndal leen cere te dama koy jëndi te xawma leen pour pourquoi pas man mënuma defar sama propre ma bagage cere di leen di ko di ko valoriser di ko jaay ma ne ko léegi ummi damaa am marque moom ci mu jàkk mu ne xanaa kase maa ba céréale noonu la affaire bi dikkee mooy commencé di produire di leen jaay avant may jaay fii ñoom laa njëkk a jaay léegi su ma keneen moom bu ma woowee yenn saa yi mu boole ma ak xaritam xaritam boobu boole ma ak xaritam xaritam boobu boole ma ak noonu laa def di ko jaay di ko jaay di ko jaay ba léegi di ko jaay nit ñi xam ko ci man chaque dimanche dama koy jaay comme ni ngay jaayee cere ñi si mbir noonu laa koy def dañuy ñëw di ko jënd dañuy ñëw di ko jënd ci local bi. xam nga lekk dafa doy waar rawatina cere yi ak araw ak sanga lii koy def suuf dafa yomb moo tax dañuy am uniforme boo xam te la ñuy teg suñu kaw. sol suñuy gan dañuy am bonnet tout saa liggéey ko ci liggéey bu sell ba nga xam ne buñ la ko jaayee doo ci gis dara loo xamante ne daf koy daf lay lii daf koy waaw métti na moom métti na métti na trop métti na parce que da ngay xam naa ni euh, ak gis ngeen bi ngeen ñëwee ak ak terre beeg li ñu démolir am noonu nañu lieu boo xam te ne fa lañ ko daan defee spécial dafa métti parce que da ngay jël dugub bi nga tànn ko defar ko dem sebet yi dafay am foo koy defaree spécial weer def yëpp métti na moom yombul moom amaguma machine man maa koy def sama équipe ak sama loxo moo tax dafay jël temps moo tax boo ma commandé parfois day durer ay une semaine dix jours mais bu doon machine xam nga du ko yàggee noonu mën nga def tey suba ñu livré la ko mais xam naa ne incha allah yàggatul dara dina ñaw dina ñëw incha allah waaw. waaw comme tey mën nañu mën nañu defar tey tey tey vendredi samedi dimanche plus tard mardi lépp pare. waaw ça dépend ci nombre bi waa commande bi ñuy am. jox jox jox jox nañ ñu jox nañ suñu cër joxuñu ñu suñu cër parce que yaakaar naa ni amoon naa fi sax benn benn projet bu ma lancé woon ci laa nekk ci bay dunde ndax yaakaar naa ni. Euh, ci Covid bi laa ko génne woon parce que maa ngi doon wax naan ci céréales yi boobu céréales yi dafa doon jar macha allah ci Covid bi ndax maa ngi doon wax ne ñun lii ñu am bu ñu ko respecté woon ñu jox ñu ci suñu cër jàppale ñu ci amaana du ñu jéggi naa ne comme ñaanu ma ko yàlla loolu bu fi ñëwee ñun ci li ñu am ci la ñuy dund. maanaam ci maanaam suñu koom-koom mën nañ cee dund du ñu jéggaane maanaam comme genre Covid bi bi mu ñëwee xam nga lépp tëj. ñun lu ñu am suñu richesse munu yow mun nañ ci dund di ci lekk di ci def yëpp te du ñu jéggaani te du cher te bu boobaa lekk bu baax ngay dem dangay ngay da ngay da ngay man sama produit yi parfois dam koy yóbbu labo ñu saytul ma ko xoolal ma ko. bala te duñ ci gis dara balaa ma kaa jéggaani di ko yóbbu ci yeneen dëkk kon suñu gëmee suñu bopp am ñu nu jàppale. kon yaakaar naa ne ci lii nii mën nañ moom la ñu tuddee bay dundee mën nañu ciy bay duñ ci dund yow boo demoon ci marché bi di nga xam ne Sénégal richesse su kase la te lépp lépp lépp fii fii lañ fii fii lañ koy bàyyee rawatina fii ma dëkk Sébi ñun suñu suuf dafa nangu macha allah bu dee fruit dafa nangu bu dee dugub dafa nangu bu dee lëjum ak lu mu mënti doon dafa nangu kon su ñu gisee ku ñu jàppale day gën a neex mais nag am na ci yenn entreprise yoo xamante ne gëm nañ ñu ñoom daf ñuy malgré liggéeyuñu li mais daf daf ñuy jàppale tey gis nga bi nga ñëwee amuñu la ko mais entreprise bi nga xam ne moom moo moo nekk si ginnaaw céréale Casamance bu fa la ñu dem parce que kooku daf ñu gëm daf ñuy jàppale ñu koy man sama produit yu bari moom moo may jàppale ma koy génne. waaw dund naa ci loo xamante ne métti na mais sant yàlla man damay wax méttiwul sant yàlla laa ko laa ko laa ko jëlee ndax euh, dafa sama client dafa am sama client yu nekk en Italie ñooñu dama leen di nuyu de passage parce que dañ may dooleel mooy ummi léegi ñu ne ma GP dafa cher léegi quoi munoo def euh, cargo nga def ci bagage yi ñun bu ñu ñëwee foofu ku nekk li nga ci am di nga leen xool ñu koy defee mooy gën a moyen cher parce que ñun dañ koy soxla di ko utiliser ma ne amul problème ma dem aéroport ma laajte ma dem laajte ñu wax ma lépp formalité yeeg yëpp. ma dem def sito sanitaire beeg def yëpp boobu li ñaan liggéey yaa ngi ma koy laaj sànq sax liñ ñaan liggéey loo ci gis tubaab dafa dafa dafay détail bi ngay fàtte moom moom lay téye léegi ma ma ma ma def samay bagage yëpp dem laajte kilo bi ñu wax ma lépp ma dugal euh, deux cent cinquante kilos bagage transitaire bi Ahmed jàppale ma ma def yëpp mu dem ba yegg ñu woo ma téléphone léegi expliqué ma ne ma bagage bi ñëw na ma woo ñu ko war a jëlee ak yëpp mais bi ñu yeggee ba vérifié ko dañ ne ma defoo si date d'expiration ak date de fabrication ñu ne ma mën naa fay cinquante euro pour ñu jënd almet taal bagage bi deux cent cinquante kilos yëpp noonu lañ ko taalee c'était jaay lépp te presque li ma si defoon ëppoon na cinq cent daf ma daf ma métti marqué ma mais dama ne loolu daf may servir leçon pour ëllëg. expérience la parce que dañ ne ma ñun xamuñu ndax lii baax na wala baaxul te boobu c'était moment Covid bi la woon. ñu ne ma amul benn problème sachet nga ko def nga ko yëpp mais wanuñu yow date bi nga ko def ak date buy périmé ñu génn si fekk dafay def dañuy defar ay madd période madd su amee day def mais madd bi dañ si def date bi madd bi rek lañ bàyyi. imagine nga ñàkk sa xaalis ñu ne la yow yaay fay pour ñu taal ko. mu loolu mu mënuma si dara noonu lañ ko taalee ñoom jotuñu seen bagage te boobu jotoon naa encaissé ay avance su jàmbur mais yàlla def ñi may liggéey comp am na ñu ma comprendre am na ñu ma comprendre ñi ma comprendre dañ ne ma après dinaa leen defaraat ñoom ma joxal leen ko seen GP seen GP après ñi si des ne ma garaawul ma defaraat jox ñooñu seen GP affaire yooyu mais beneen yoon dama liñ ma tere woon ma defaraat ko mu réussir waaw mais metti woon na trop. waaw li ma koy consommer nit ñi di ma fu ma tourné cassement ba céréale cassement ba céréale léegi loolu dafa may neex ak euh, jour bi ma toogee benn waay bu ñuy wax Baye Cheikh global jaru xam naa dañuy tere publicité bi mais dinaa ko wax Baye Cheikh business mu woo ma tel mu wow ma mu ne ma naa ko wuy si ma ñëw wuy si ko mu ne ma li may li ngay def dafa neex dama bëgg sa marque bi di dem si si si supermarché yeeg yëpp nit ñi di xam lan mooy céréale cassement bo moom moo njëkk a jox local te fayuma dara mu jël kër jox ma ne ma local bi dee fa liggéeyee bàyyi di liggéey sa kër man dinaa la jàppale xam nga ngay liggéey nit gis ko woowi woo ko moom mu ñëw mu loolu sant yàlla la mu ñëw jox la local xëy na yàlla moo def local bi ak travaux terre yi ñu taj ko mu ne la del ñëw fii di fi indi sa paan di fi indi sa leget ba machine fekk la fi te amaana bu ñu fa toogoon machine dina fa fekk ndax ki la jox local jox la lépp xëy na boo toogee dina la indil machine loolu tamit bokk na si lu ma gën a neex du maa ngi nuyu sax yàlla daf ma booleeg borom kër bu baax boo xam te ne dafa may jàppale lépp lu ñu sol moom si liggéeyul moom lépp lu ñuy defar moom si liggéeyul moom mooy ñëw foofu sol ko di ma si jàppale xam ne liggéey ci jaamu yàlla la bokk mu may encouragé mais métti na parce que boo bëggee di yenn foofu ak sa parce que man su ma xasee ba génn kër ga euh, presque ba yóbbu xale yi ñu jàngi presque mën naa fa duggaat ay ay dix yenn saa yi ñu woo ma ne ma am na ko indi dugub wala dara nga dem xooli en plus dama yoraale beneen business ci suuf dama yoraale beneen business maa ngi ci immobilier waaw moom ñaari laa sumile boole ko. Mhm. yenn saa yi da gis léegi nag bu njëkk ba. la gënoon a metti mais léegi nit ñi dañ koy bëgg parce que da ngay fay da leen woo ne leen journée nangam ñu ne la nangam nga liggéey leen ko yenn saa yi tamit mu metti yenn saa yi mu neex mais dañuy ñëw lu ñu def rek da nga leen di fay journée boobu. man commencement bi dañ ma doon wax yow lii doo si am dara parce que dañu xeep sankal bi ak araw bi léegi ñoom dañu dem ba ñaan ma bis boo créer sa sa sa entreprise jël ñu parce que xam nañ ne lii am na njëriñ ba pare liggéey jarul xeeb. gis nga Kia li ngay am cent franc sax bu ko xeeb parce que cent franc yooyu chaque jour boo dee jël fukki dërëm di di tëmbal fenn di jël fukki dërëm di si liggéey su yàggee moom moom moo lay may entreprise boobu parce que nit dara xëyul xëyul sotti dërëm dërëm man bi may soog a commencé douze mille franc laa commencé woon douze mille ngay dem di dem di dem ba yow di fay cargo yow xam nga li si cargo cargo ngay dem aéroport di fay cargo di fay ay cité sanitaire pour muy dem dëkk ak dëkk te ci douze mille laa commencé di jënd samay dugub kon àdduna dara darul xeeb muy immeuble boo gis borom bu la waxee fu mu jaar nga ni déedéet te yéen seen télé bi Youssou Ndour avant mu koy taxawal bu la waxoon fu mu jaar da naan déedéet te pourtant tey taxawal na ko entreprise noonu la nit ku ñuul nag moo tàmm xeeb dafay xeeb ba xeeb lu koy jariñ bul xeeb dangay ngay di xeeb di xeeb ba xeeb li lay jariñ waaw waaw Kia da nga may may rek ma tàggatoo mais ma gërëm sama ñaari partenaire xam nga nit boo nekkee nit nit di la di la encourager nit di la di la di la di la di la di la gunge ci loo mënti dem muy métti mu lay gunge muy neex mu lay gunge ñu koy wax monsieur bay Cheikh borom global business maa ngi koy remercier bu baax a baax a baax a baax ak monsieur Aliye Fall maa ngi leen di remercier bu baax bu baax a baax parce que dañu jàpp ci céréale kase maabu ba ma xam ko sama jëkkër nag moom mention espécial ndax feccu liir su neexee ndey ji moo jàpp ci mbagg ya parce que ku la tere doo dem ba su ma tere woon damay toog mais moom moo may encouragé di nuyu waa SEB bi yëpp di nuyu sama équipe équipe bu kase maabu céréale xam naa ne bu fekkoon ne tey lu lu mag la ñoom ñëpp dañuy ñëw mais lu ndaw la sànq maa ngi leen naan boo leen yeexee say doo leen di ngeen fekk ñu enregistré ba pare maa ngi leen di remercier di remercier personnel global bi yëpp di ko teg ci loxo numbe mu tegal ma ko si ñëpp parce que mënoon naa ba ñu am local ñu jàppale na ma doo ñëw mais gis ngeen bi ngeen ñëwee fii yaatal bi ñu ma yaatal kon maa ngi leen di remercier di di leen remercier yéen waa groupe Futurs Médias parce que lii yombul nga nit fi nga ko fi nga nga fekk ko ci li muy def lii day dool day tax nit di gën a góorgóorlu pour wan ne ne ko am na ñu lay bàyyi xel maa ngi leen di remercier bu baax di leen wax kontaan naa yal na yàlla def jàmm. ah merci maa ngi souhaité tamit bon fête jigéen ñi ci àdduna bi yëpp maa ngi leen di wax bonne fête 8 mars di leen wax euh, mois bi suñu mois la yal na jàmm yàgg ku nekk li nga nekk di ci yëngu yal na la ci suñu borom fekk ci kàttanu yàlla. todo.